aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamina wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadin al makin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain ixwat al imaani wal islaami wal ixsaani wal iraadati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki M-Media Group Nourou Daarayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen ziyaare di leen dokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala at mu bees mi ñu dugg muy sunu at ñun jullit ñi yàlla doole cee defal tawfiix bu baax a baax jéggal ñu ci suñu rëcc rëcc nugal ñu ci suñuy jaamu yàlla te gën ñoo xeer ci boppam loolu ñoo dimbali may ñu gudd gi fan ak wér ak fekk ak tal ak mujj gu rafet ak xiiwal ak jàmm di ñu liggéeyal islaam jaamu yàlla gu nungu jéggalu bakkaar yàlla na ko yàlla defal bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy baal ak ñëpp nag di ñaan ñëpp baal ñu ak di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ñu teewe ko ay déwéni déwéni déwén bi jaay sayyidil wujuud sallallahu alayhi wa sallam nuyoo boobu ak ndokkeel gi nag ñu koy teg ci loxol kilifa rek kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké suñu sëriñ kilifa ak jotaay bi kilifa ak liggéey bi di ko ñaanal moom itam yàlla ko yàlla doole defal tawfiq bu baax a baax a baax ba li mu yéene liggéeyal islam lépp mu mën koo liggéey dañu ànd ko moom bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te di sàkku ci moom it mu dinu gën a fasaale bu baax dinu dolli ñaan bu baax a baax a baax ñoo ngi yaakaar ñaanam lool di bëgg ñaanam lool di ci bàyyi suñu xel fu mu mënti toll kon ñoo ngi koy ñaanal mu dinu dolli ay ñaan yàlla kenn noo taxawu ba liñ bëgg a liggéeyal islaam lépp ñëw mën ko ko liggéeyal kon suñu fatwa bi tey ñoo ngi dellu di ndokkeel mbokk yépp jataay bi gën nañ koo am waaye xam na xew-xewi jamono ji rek ak yitte yu bari yi waaye yàlla na yàlla doole defal tawfiix kon tey laaj bi ñu njëkk am rek mi ngi jóge ci soxna si soxna Fatma Ndiaye Cubba ñoo ngi koy siyaar di ko ndokkeel moom dafay laaj ma hiyal ayam al mubaaxu sawmuhu min muharram soxna si day laaj ne yan fan moom lañu digle ñu mën koo woor maanaam ñu di ko woor ci weeru tamxarit yi nga xam ne bii moom lañu dugg fan yi nga xam ne yii moom lañ ñu tànnal daal ne baax na lool ku ko mën nga di ko woor ci weeru tamxarit yi ñu dugg mooy nii ko sëñ bi waxee muy jiimu muharramin wa taa'uhu wa yaa'uhu wa raxabu sarduhu aw sardahu ne nañu weer wi ñu nekk muy weeru tam xarit bu ñëwee ba ci ñetteelu fan ba sopp nañ ko ko woor lool waaye tamit juróom ñeenteelu fan ba itam sopp nañ ko ko woor ak fukkeelu fan ba waaye tamit ne ne boroom xam-xam yi sopp nañu lool xemmem nañu lool képp koo xam ne kii mën ngaa woor weer wépp nga woor ko kon daal fan yooyu mooy yi nga xam ne yi moom lañ ne ku ko mën nga woor ko ci fan ci ci ci weer wi muy ñetti fan ya maanaam ñetteelu fan ya buñ ne teel a ñetti fan ci wutam xarit waaye tam buñ nee ba ca juróom-ñeenteelu fan ba ak fukkeelu fan ba waaye tamit ku ko mën weer wi yëpp itam nga woor ko comme ni ko yenn ti mbokk yi di defee. yeneen laaj yi ci topp suñu sëriñ Cheikh Alioune Badara Ndiaye oustaz moo ko fi yónnee moom tam laaj yu am am solo. muy laaj lu am solo di nu fàttali di nu jàngal bu baax a baax a baax muy laaj moom sin bi ne ne hal yataqaddamu al mayitu ala man yushayyi'unahu aw yakunu wara'ahum sëriñ badara laaj bi mu njëkk a laaj mooy day laaj ne am néew buñ ko waajalee ba yenu ko di ko yóbbu te fañ ko war a denc maanaam bu ñu ko yóbbu maanaam néew bi mooy jiitu wala néew bi dafa war a nekk ci ginnaaw ñi nga xam ni ñoo koy gunge loolu lañ ko ci doon dañ naan al afdalu an yuxmal al mayitu aw an yaxmil al mayita arbaatu rijaalin liñ ko ci jëkk wax dañ ne sopp nañu daal am néew buñ ko yenu di ko yóbbu ci bàmmeelam di ko denc maanaam ñeenti nit yenu ko aw aqallu in am kana walla lu néew ñeenti nit maanaam suñ ko attanee kon wa yukrahu aktharu min arbaati waaye nag ne nañu sim nañu sax nag lu ëpp ñeenti nit di yenu am néew di ko yóbbu ci bàmmeelam kon daal liñ ko ciy jëkk a wax muy loo xam ne dafa aju ci loo xam ne moom la ñu war a bàyyi xel taxawoo ko néew boobu ñu waajal ba di ko yóbbu ci bàmmeelam mooy la ca jëkk ña koy yenoo dañ ne suñu mënee doon ñeenti nit daal moo ci gën wala ñetti nit waaye sax sim nañu lu ëpp ñeenti nit di ko yenu waaye tamit wa yataqaddamu man ala rasihi ne na itam buñ ko yenu ña nga xam ne ñi ñoo féete bopp ba maanaam ñooy jiitu wa man kaana min al mushayiina rajulan yataqaddamu alal mayti ne na ñi koy gunge nag ña nga xam ne ñi dañu dox ak seeni tànk su boobaa ñoom ñooy jiitu néew ba maanaam ñooy nekk ca kanam néew ba ña ko yenu topp ca mbooloo moomee wa man kaana minhum raakiban yakunu waraa al mayiti waaye koo ci xam ne dangaa dugg ci dara maanaam dangaa war dara da nga ne ci sareet wala nga ne ci wata wala nga war dara daal maanaam doxoo ñooñu dugg ci dara daal wala ñu war ci dara moom ci ginnaaw néew bi lañu war a topp ñaareelu laaje bi mooy kayfa yudd fanul mayitu ne ne nag buñ demee nag ba gasal ko këram googu maanaam foofu ba lañu koy dugal ca bax ma ak buñ ko te dugalee maanaam nan lañu koy suule daal ban taxawaay lañu war a am ci buñ demee nga xam ne léegi nag suul ko rek moo ca des mooy dañ ko naan an yakuna sandaqu sadra maa laa yafuuhu natnu ne nañu bàmmeel bu ñu koy gas nañu ko xóotal ba nga xam ne buñ ci dugalee néew bi su demee ba sëppak bi maanaam du xeeñ maanaam xet gi du génn maanaam pax mi daal lu mu lu mu ñàkkan xóot nañ ko xóotal xóotaay boo xam ne bii bu néew bi demee ba sëppak bi ba nëpp nga xam ne day xeeñ su boobaa xet googu du mën a génn di xeeñ ñi nga xam ne ñi mooy nit ñi waaye wala yumkinu li baad al xayawaanati xafru lil wusuli alal mayti tey dene bàmmeel ma bu na xóot xóotaay boo xam ne bii ndegment yi maanaam du ñu mën a dem di sulli néew boobu di ca sàkkam pexe maanaam dafa am ay xeeti rabi àll yoo xam ne yii bu ñu suulee nit dañuy dem di jéem a gas bàmmeel bi su ko defee nag bu bu bàmmeel bi xóotut dañu koy mën a jot te loolu gënut kon ne ne daal bu ñu koy gasal nañu fexe ba buñ ko suulee xet gi moom du génn di xeeñ nit ñi waaye tamit rabi àll yooyu nga xam ne dañuy dem di sulli di wut lu ñuy lekk foofu lu ñu mën a yegg ca néew ba kon bu ko defee bokk na ca al axdu min turabil xabri wa qiraatul fatihati maratan wa suuratil xadri saba maratin ne na itam ba dañu koy dugal ca bàmmeel ba bokk na ci loo xam ne sopp nañu bëgg nañ ñu defal ko néew bi ngir mu di ko musal ci fitnaay bàmmeel ak i mbugali bàmmeel maanaam ñu tibb ci suufas bàmmeel boobu suuf si bees soosu daal di jàng suratul fatiha ba mu àgg benn yoon jàng inna anzalnaahu ba mu jeex juróom-ñaari yoon wa idxaalu turaabi fil xabri xablal mayti daal di jël suuf soosu dugal ko ci biir bàmmeel bi balay cay dugal ki faatu wa kadalika qiraatu haza duaa talaata maratin alal mayiti xiina idxaalihi dañu itam bu ñu defee noonu bala ñu dugal néew bi ci biir bàmmeel bi itam bëgg nañu maanaam ñu jàngal ko ñaan gi ñetti yoon ñaan gi nga xam ne gi digle nañ ñu jàngal ko ko ñetti yoon buñ koy bëgg a meeb di ko dugal ci bàmmeel bi mooy ñu ne allahumma inniya asaluka bi jaahi nabiyika sallallahu alayhi wa sallam nabii rahmati wa turbati taybati altahirati wa ma dammathu an laa tuaziba hada al mayita fi qabrihi ñaan gi lañ ne sopp nañu ba bu ñu koy meeb di ko dugal ca biir bàmmeel ba ñu ànd ak dugal ga ñaanal ko ko ñetti yoon mooy allahumma yow yàlla inni asaluka maa ngi lay ñaan bi jaahi nabiyika ci barkeet sa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy Seydina Muhammad nabi rahmati yonente bi nga xam ne bi yonente bi yërmande la ak it suuf si mu tëdd suuf sam su teey soosu te laab lool ci barkeb suuf soosu ak li nga xam ne lii béréb boobu moom la làmboo lépp daal foofu Seydina Muhammad tëdd ne ne maa ngi lay ñaan yow yàlla nga bañ a mbugal borom bàmmeel bii nga xam ne bii moom la ñu dugal fii tey wa kadalika bokk na ci itam xiraatul fatiha bi wal ixlaas yi wal falax yi wal naas yi maratan inna rasi ne ne itam buñ nee ba tëral ko ca biir bàmmeel ba bëgg nañu ñu jàngaat suratul fatiha ba mu jeex jàngaat xul huwallaahu ba mu jeex jàng suratul falax yi ak suratul naas bu ci nekk ñu jàng ko benn yoon fa nga xam ne fii moo tolloog bopp ba ñu tufli ko ca xabla xabla daf ni ida ullu xilal xabda ne ne buñ ko dugalee ci biir bawal bi ba nañ koy suul maanaam ñu jàng loolu muy jàng faatiha benn yoon qul huwallaahu benn yoon qul awuzu bi rabbil falaq benn yoon qul awuzu bi rabbin naas daal di koy tufli ca bopp ba wa kadalika kitaabatul basmalati maratayni muxtalifayni daaxilal xabri xabla idxaalihi fii leneen itam bëgg nañu nga bind ca biir bàmmeel ba buñ ko gasee ba pare ba lañ koy dugal ba lañu dugal néew bi nga bind ñaari bismillahi rahmaani rahim yoo xam ne da nga koy safaane benn bi da nga koy tàmbalee ci ndeyjoor ba bismillahi rahmaani rahim ji beneen bi nga tàmbalee ko càmmoñ maanaam ñu safaanoo nga bind ko ca biir bàmmeel ba bala nga koy dugal ci biir bàmmeel wa xayri zalik min kulli duain yanfaul mayta wa yunjihi min azabil xabr ne ne itam lépp loo xam ne daal ak ñaan la ku baax goo xam ne gii yaakaar nañ ci yërmande yàlla yaakaar nañ ne maanaam buñ ko ko ñaanalee moom néew bi yàlla dina ko musal atte ko ci yërmandeem te bañ ko mbugal ca bàmmeel ba danañ ñaan ku mën a lool rek ci jamono jooju ñu koy denc di ko dugal ci biir bàmmeelam boobu sopp nañu bëgg nañu ñu ñaanal ko ko kon yàlla yàlla jéggal suñu néewi jullit yi nga xam ne ñoo nekk bar sax atte leen ci yërmandeem xaare leen aljana ñoom jullit bu leen fa fekk bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ Badara Njaay ba tey beneen laajam bi mi ngi aju ci wàllu julli mi ngi laaj xukmu man shakka fi raslil janabati wa salla salawaatin dafay laaj ni ki nga xam ne kii dafa amoon sobe war a saw waaye dafa dem ba julli ay julli yu bare léegi nag mu wëlbatiku di sikki sàkka ndax moom sangoon na wala sangu ten farata boobu nga xam ne gii moom la waral na sangu lañ ko ci wax dañ ko naan fa man salla bi najasati naasiyan laha aw jahilan biha aw aajizan an izalatiha fa sala an izalatiha fa salatuhu sahihatun indal malikiyati wa tundabul iadatu dañ ne képp koo xam ne kii da nga am sodee fàtte ko maanaam da nga ko fàttee wala nga yëgoo ne maanaam réere nga ne maanaam moo sobe wala sobe soosu mënoo koo dinti ba julli ca danañ boo jullee julli googu dana wér lii nag ñu sukkandiku ci ñi nga xam ne ñi ñoo ñu jàngal fiqh muy al fuqaha al malikiya loolu la ñu wax danañ daal yore sobe fàtte ko ba julli wala mu réere ko ba julli wala mënta dindi sobe sobe si menn pexey ne ne su jullee julleem yooyu day wér waaye nag ne ne wa tun dabul iaadat waaye nag su ci jullee dem bay sikki sàkk ndax dindee ndakoo la dem ne rek su boobaa de dinañ sopp maanaam mu baamuwaat julli googu wala julli yooyu xaala rasul sallallahu alayhi wa sallam wafiye li ummati yi maanil xata yi wa nisyan Seydina Muhammad ne ne sama xeet wi jéggal nañ leen loo xam ne nii njuumte la ñu def ko wala loo xam ne dañ ko def ngir ak fàtte kon ki nga xam ne kii dafa fàtte sobe soosu ne ne ba dem ba julli ca wala mu réere ko xamul ne am la sobe su boobaa ne ne julli googu day wér tey dañ ne an najaasatu laa yuhkamu bihaa bi mujarradi shakk ne ne sobe daal bu fekkee dañuy sikki sàkkaa ci dindi nañu ko wala dindi ñu ko du ñu àtte ne maanaam léegi sobe la dañu jàpp ne rek léegi yow la nga ci julli baax na maanaam bu fekkee ni sobe la nit ki di ci sikk sàkka comme ni mu ko waxee ci beneen tomb bi muy bu dee ni sikk sàkka na ne maanaam moom ndax bi muy julli julli sangu woon na wala sanguwut su boobaa rek dañ na na jàpp ne sangoon na mi ngi mel ni comme ki nga xam ne kii dafa gis sobe si mu leer ko ne lii sobe la muy xalaat ndax sobe si taq na ko wala déet su boobaa maanaam foofu mu yaakaar ne dafaa taq dafay wis am ndox waaye su gisee loo xam ne lii dafa taq ci yére yi muy sikki sàkka lii sobe la wala déet su boobaa dañuy jàpp ne lu laab la mooy digg fi nag ci ki war na sangu janaaba te sangu ko xañ na waaye julli na ay julli yu baree bari ba pare di sikki sàkka ndax naa man sangoon naa farata wala déet dañu jàpp rek ne moom kon laab na kon julli yooyu li ëpp ci fuqaha yi maanaam d'accord nañ ne maanaam julli yooyu day wér waaye tamit am nañu ne sopp nañu nag nga baamuwaat ci lii lii nag liñ ci teetalu mooy Seydina Muhammad mas nay julli sol ay dàll fekk wenn dàll wi dafa am sobe léegi Jibril ñëw wax ko ko léegi bi mu ko waxee Seydina Muhammad Seydina Muhammad daggul julli ga waaye dafa daal di summi dàll woowu nga xam ne dafa am sobe daal di continuer julli ga te maanaam daggut li nga xam ne lii moo jàllan ci julli ga te loolee jàll maanaam bi mu koy julli ànd naag sobe sax mooy kon la waxal feene bu fekkee ni xamul ne am na sobe si wala mu fàtte ko wala munu koo dindi wala mu koy yëg wala muy sikki sàkka ndax dindi na ko su boobaa day wéyal julli yooyu rek nga xam ne yooyu moom kon laab na waaw dana yàlla doole defal taw mi ñëw seen wa sallallahu alayhi wa sallam